gàmmu di guddi gi seydina mouhamadou rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gane jamono te Serigne Touba di fësal ne ba mu ko dalee gàmmu bëri waanul ñu ko gàmmoo ci réew bu Sénégal loolu nag euh, tax ba xalifa général di mul Serigne Mountakha Bassirou ni nga xam ne noonu woon weeru koor wu ci biir dëkk bu sell bi di Touba noonu itam la soññee mboole mbokku taalibe mi dal di gàmmoo waaye itam dundal guddi googilee ci biir dëkk bu sel bi di Touba daayira Hizbut Tarqiyyah bi nga xam ne ni moom moo gàlloo lépp lu jëm ci organiser moom i la mbir nag daanaka liggéeyam yëpp yem yemb ab décor bu rafet ay cage ab décor bu rafet ay cage ak mboolem lépp loo xam ne day taaral résidence Xaadim Rasuul jamono jii lépp yemb ay bâche yoo xamante ne nii dangay xool ba fu sa bët yam lépp ñu daal di koy defar ànd ak mukket yu mucc ayib yoo xam ne nii mën naa waajal ay doomu aadama yu takkoo takku moom la ñuy nemmeeku uh, fii ci biir résidence Khadim Rasoul jeu de lumière yi foo toll di seen sa bopp waaye itam di seen taar bi nga xamante ne nii def nañu ko ba mu méngoog bis bi daay daayira Hizbut Tarqiyyah yamuñu foofu lépp loo xam ne nii lu jëm ci ay bernde la yoo xam ne nii war nañu koo waajal jamono ji ci bëccëgub gàmm gi lépp yemb na daanaka li des rek moom mooy fexe amal mbir mu ni mel Serigne Touba Bamba Xaadim Rasuul waxoon ban anam la ñu war a màggay li nga xamante ni moom moo di gàmmu gi waaye itam ci aada yoonu murit lépp loo xam ne dañu koy màggal dañ cay jiital alxuraanu karim teg ca xasida waaye itam teg ca li nga xam ne moom moo di bernde daayira Hizbut Tarqiyyah bàyyiwuñ loolu le benn yoon ginnaaw li nga xam ne moom moo jëm ci kafe gi ak lépp loo xam ne lu saf suukar la wala lu jëm ci wàllum ndawal jamono ji lépp ñi ngi ko teg mu daal di ci kanamu taalibe yi ngir ñu war koo xéewloo mu des tam beneen pàcc bu am solo muy saal bu yéeme bi nga xamante ni moom lañ tuddee saal Serigne Moustapha Bassirou nekk ci résidence sa xol day sedd guyu bu weesoo sedd bi nga xam saal bi sedd na ko taar bi dayo bi foo ko natt weesu na ko lu jëm ci xasida yi nga xamante ni ak diwaan yi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul way ci guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ganee jamono mbooleem xasida yooyu ñi ngi ko teg rangé ko ba mu riimee waaye itam defal li nga xam ne moom moo xaritam fi nga xam ne fi la xalif général des mourides war a toogee ba mu yem jamono ji ci ni ñu koy gisee ci biir image yi loolu nag di aada joo xam ne ni daayira yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci biir la joo xam ne taamu nañu koo def ci guddik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu jumaa ju sell ji itam daayira Muxaddamatul Xidma noonu la ko fa defee ci esplanade jumaa ji la ñu soppax ndiku daal di koy defar mu nekk bërëb boo xam ne bërëb bu yéeme la mucc ayib lool ngir ñu mën fee def ñetti kuréel yi nga xam ne nii moom la Serigne Touba daan gàmmoo di jës bu mawaahibu ak muxaddima ak ay buntu ci barzan mboole mi neen daayira itam daal di dikk jàpp si ci liggéey bi lu ci mel ne daayira lu café Touba waaye tam itam daayira Serigne Amsatu Mbàkke ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo war a jàpp ci liggéey ba mu mën a yemb kon liggéey bi suñu diggante ak li nga xam ne moom moo di guddi gi ay waxtu yu néew des ci jamono ji Touba di wàcc ngir daal di def gàmm goo xam ne nii na ko Serigne Touba noonu rekk la ñu koy daal di defee moo di màggal ko ci sunna